delluwaat di santaat yàlla rek dañ ko teewee léegi nii déwén yàlla may ñu teewaat ko rek nii ren euh, di sant sëñ Muntaxa bu baax baax di ko ñaanal yàlla na fi yàgg ko wér di ñaanal bépp kilifa diine boo xam ne nekk na si biir Touba Saliou Dieng nag wax dëgg yàlla ku ko ku ko xam ku nekk wax dëgg yàlla da xam ne kër sëñ Sow la bokk dafa doon loo xam ne da doon si si si si waa juróom kër gi fii naa ne kër sëñ Sow bi sëñ Sow bi moo ko ci papaam la woon ba papaam mu génne àddina mu doxal lii kon ku ko xam nga xam ne kër seen bi la doonu loo xam ne ni li muy waxantu la doonu loo xam ne li muy doxantu la lu gëm la parce que mën toog semaine aljuma bu jot moo moo moo moo kër seen seen seen seen kër seen aljuma bu jot dana dem jaar yi seen kon nekkul taale boo xam ne nii at ba at wala ñaar at ba at ngay toog di jàkkaar si seen kon nag duñ def dara bu wootee màggal gi tey jii biir këram duñ def dara lu di ko ñaanal yàlla yàlla dëgëral ko li ngi mébét yàlla yàlla eh, lépp loo xam ne moom la sumb rek yàlla yàlla àggaleel ko bak seen sey gannaaw mu doon mu dafa loo xam te da koy dund la wax ay sant jullit boo xam ne jàmm ak salaam dox si seetaan nit ku nekk si ay jafe-jafe mas na seetaan nit ki feebar ku nekk si biir koñ yitteem yëpp ak mébétam yëpp mooy sàkku si nu ñuy def ba koñ bi jëm si kanam képp koo xam ne dégg na jafe-jafe dana def ay ay ay ay pexeem ba ko a jàppale dañ ko jàppale boole ko rek ay xale góor koñ bépp lépp moom moom la kon boog amal na njëriñ koñ bi du tardé juma waxtu yëpp si jàkka joo koy tey boo demoon tey kër sëñ Baay Mbàkke dañ ne la kii jullit askan kon ba ñun waa koñ bi da amee lu dañ koy sant ba fi sant yem te nit baax la nit ku yëwén la alalam di ko boole kenn dëgg yàlla kon boog di ko ñaanal rek ba journée bii mu war tey si bësub sañ sañ bi lépp luñ ci sentir yàlla nag sañ sañ bi waaw asalaamaaleykum ñi ñuy seetaan ñi di ñu bi ñuy filmé xanaa am mbégte lool di teewee bés bu mel nii ndax kiñ koy màggalal Serigne Sow bu nekk jàmbaar ji ci yoon wi nekk jàmbaar ci diine lu mu liggéey lépp ci yoon murit lu dul loolu it kontaan lool liñ fi teewee ndax euh, ki woote bés bi di taalibe ci kër gi moom day suñu xarit nekk suñu doyen ci li ñu liggéey nekk aussi suñu conseiller ci lu bari donc ñuy partager yi bari donc su xewlee lii ñu teew la rek teewal nañ suñu bopp waaye vraiment teewal nañ ci aussi ñi nga xam ne ñooy bokk ñoom liggéey ndax nit ku baax moom firnde la euh, li li si ñu dajale Eh, bu weesoo loolu it ñu xam ne lu mun di xew it dañuy dajawaat lu mu métti métti danañ dajawaat mais nan la ñuy dajee moo am solo parce que tey daje nan moo tax ëllëg nag lu ñu mun di séq ak lu ñu mun di nañuy fàttali toujours li ñuy boole ñoo bokk diina ji bu weesoo loolu it ñoo bokk deret bokk liggéeyukaay nekk ci ay ndaw bokk réew lu mun di xew nañ koy def di rafetal ci kàddu yi di rafet ñu jiital li nga xam ne moo solo mu Sénégal bi voilà ndaw moom mooy réew sax daanaka donc boo ko génnee ci réew ku xam ne ndaw nag ndaw moom fitna la ànd rek waaye dañuy ñaan yàlla suñu borom muy saxal ci ñun suñu dañuy diine ndax bokk na ci loo xam ne tey yaakaar ne mu nekk ci salaa loo xam ne bu ñu téyee rek euh, lu bari danañ ko mën a mooy ah xanaa sant yàlla rek di jëm ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam ah, da lii moom wax dëgg yàlla mbégte la maanaam day mel ni mën nañ ko defal ndax Saali moom wax dëgg yàlla day xale bu yar boo xam ne dama ko féetewoo mu nekk sama te lépp lu muy dox sunna ak farata la koy teg loo xam ne leer naa ñu la koy teg ndax du wisee lépp lu muy def tamit yàllaa tax mu di war moom loolu yaay papaam ma ko ci yar wax dëgg yàlla papaam ma ko jël yóbbu ko sëñ Cheikh mu ànd ak moom jox bam boppam ba am ndigal lii di ko def kon na loolu sant yàlla la rek la ndax lépp papaama nag di ñaanal yàlla papaam fa mu nekk yàlla na gën a fi mu nekk ndax taalib la man xam naa ci dara parce que jàpp na ko ko ci saa yi naa ko kanam ndax loolu boobu fàcc woo man maa fekk sëñ Saliou sëñ Cheikh Say taxaw ma toog bàyyam toog kon su defee lii tey si sëñ Cheikh Say si gil na bàyyam ñaanal sëñ Souhaïbou bi nga xam ne si moom la ñuy ñaanal lépp lu fi ñaan ci lu baax bi jullee ba pare yàlla na ko yàlla jotale di sant ñëpp di sant ñëpp ndax xooj bi mu nekk de wax dëgg yàlla lu baax rek la fi def duñ fi def lu baax loo xam ne social boo xam ne kenn bëggul ku ko xam saali bu lay jox bëggul nda ko càmmoñ xam ne bu ndajee lay jox kon nañ koy gën a ñaanal yàlla ak wér ak gudd fan ak njaboot gu waaw fii di gannaaw ba ñu sant yàlla jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy ñaari waajur di gërëm suñu la Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké di ñaan suñu boroom yàggal ko fi mu ànd sant bu baax mbokk yi di sant dëkkandoo yi di sant yaay yi tante yi mbokk yi wóllëre yi ak dëkkandoo yi ko yëpp ñu leen sant di sant soxna yi bu baax a baax a baax ci taxawaay bi bis bi nag sëñ Cheikh Seye moom jox digal ñu ko daan def di ko yóbbu këram mu xamal nañu daal bu bu del seetee nañ ko def ci kër gi képp ku suñuy xarit ñu woo ko bégal ko dañ ci tànk yooyu lañ nekk di ko ñaan suñu borom yàgg fi di ba wér di ko di ziar sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke bu baax di ziar waa këram di ko dale ci sëñ Abdoulahat Seye ba ci suuf di sant bàjjen ci kër gi yëpp li ci dalee soxna maam xarit ba ñëpp suuf mu ngi sant bu baax daal waaw xam nga waaw xam dama ko daan def da togg ay ndab togg ay ñam togg ay berne yu bëree bari yóbbul ren nag ma dem fa depuis daaw mu ne ma daal léegi may naa la ndigal nga koy defee sa kër nga yaatal wàcc alxuraan euh, ganale say gan sant sant santale santale yàlla suñ suñ suñ bi ci bis moo tax ñëw ci kër gi def ko fi kër gi nag suñu borom suñu bàyyi nga xam ne mooy sa jën nekkoon taalibu suñ Cheikh Say bu baax sañ Cheikh Say taxawu ko ak njabootam taxawu ko moo tax ñun lépp lu ñuy def rek moom la ñuy commencé moom la ñuy mujjee loolu daal moo waral taxawaay bi di sant si ci Amadou bu baax bu baax amuñu santam am amuñu fayam di ñaan suñu borom yàlla ko fi loolu tëgal waaw li mu mën a taataan ci suñu chaîne bu mooy surtout fi jamono toll ndax ku xam suñu chaîne bu xam ko ci alxuraan xam ko ci xam-xam xam ko ci xam ko ci diine tey boo xoolee communauté murid bi yëpp daanaka ñu bari jaar nañ ci loxoom démb rek ñu ngi doon ñu ngi doon intégré bibliothèque ko tuddee kon suñu chaîne bi moom tey fi jamono toll nga xam ne dañoo sàgganee xam-xam sàgganee diine tey weeru koor bu commencé rek xel yëpp day dem suñu chaîne bi ndax dafa bind bind téere pour naafile yi bind téere pour koor bind téere pour santé kon tey fi nga xam ne foofu la tegoon tànk muy xam-xam tey monde bi tey xale yi tey war nañoo roy ci moom euh, barkeelu ci delluwaat ci mbindam pour xam ne ne lii fi mag ñi indi woon mooy lu baax mooy lu wér ñun xale yi ñu teg suñu tànk ndax jamono bi toll na foo xam ne nii léegi xale yi xamul fi ñu teg seen tànk yeneen exemple la ñu jël yeneen référence la ñu jël yeneen référé la ñu jël alors li ñuy wuti feneen am na fii suñu suñu biir kon ku mel ne sëriñ bu Mbacké nga xam ne diineem tànkam dundam lépp xam-xam la woon ak sàkku xam-xam tey tey c'est une référence pour tout la jeunesse musulmane pour toute la pour toute la umma musulmane ñu sukkandiku ci li nga xam ne moom la bind ndax dafa bind bàyyi jëf bàyyi yar ay doom bàyyi kon loolu daal moom mooy mooy mooy liñ ci war a jàng ci bis bi di ñaan suñu borom yokk ay leeram barkeelu njabootam ki nga xam ne moo ko fi toogal di sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér jàppee nañu taalibe jàppee nañu doom buñ toogee àjjuma buñ ko gisul sax dañuy laaj ndax ñëw nañu wala ñëwuñ lépp lu muy def dañu ciy boole soxla bu ñu amul mu taxaw ci kuñ ko yóbbul mu defal ko ñaan jàppee ñu ko boppam kër ga daal amuñ foofu frontière foog ay doomam di lekkee fa la ñuy dugal ñu fay lekk fa ay doomam di naan fa la ñuy dugal ñu fay naan amuñ ci frontière kon daal ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax nag bu amee suñu bàyyi moo ñu xàllaloon boobu di sant ñëpp nga xam ne xale yeeg mag ñeeg ñëpp daal ñu ngi fasu di ko di ko déglu lu sëñ lu sëñ Cheikh Seye bëgg rek ñun ci lañ ne lu mu bëggul nekkuñ ci sànq boo gisee ba ñuy ndogu ñu bëgg a ubbi débat politique dama bañ ndax tey bëgguma ñu def débat politique ndax ñii daa dama dama dama nekk dama nekk benn nit boo xam ne nii opposition comme pouvoir dama ci am ay xarit léegi bu mu fa dajalee ay opposition pouvoir bëgguma ñu débat débat politique moo tax ma leen tey amul débat politique ndogu la ba ba suur waxtaan waxtaan ki sëñ bi loolu mooy moom mooy mooy kii bi loolu nag boo gisee tey contexte politique bi dafa dafa indi xéeroo indi ñaayoo ñuy jàpp fii ñuy bàyyi fii te loolu taxul politique di jub di jub ndax politique jaamu yàlla la tey bu fekkee dañoo ne yàlla bu tey boo dee yàlla dana laaj sa waxtu loo ko kon même waxtu bi li ngay dox di politique sax yomal xiyaam suñu borom dana ko laaj te ab jullit yaakaar naa ne tey ñaanul yàlla dem ba yomal xiyaam liggéey fi liggéey bu rëy ñu won ko montagne mbë xéewal mu nekk poussière bañal bañoon moroomam wala noot gi nootoon moroomam te àdduna dara amul solo lépp ay jeex fii lépp day jeex gis nga tey ñu baax ñi tey dañ leen di màggal ana lu tax ñu leen di màggal nekkutuñu fi mais lan la ci ñoom lu baax lañ fi bàyyi woon rek la ñuy màggal ci ñoom xaalis bàyyi ñu fi alal bàyyi ñu fi dara ndax pouvoir day jeex lu yàlla lu du pouvoir yàlla day jeex am am day jeex lépp ay jeex lenn rek moo dul jeex mooy mbaax lenn rek yomal xiyaam lenn rek la nit di yóbbu ci suñu borom te du ko rëcc mooy baax ak ak ak gëm yàlla kon nit ñi nañ nañ nañ politique bi nag nekkul dara lu bëgg développer sa réew kii nag bu ne man bëgg naa defar kii ne bëgg naa defar bu ñu xuloowee rek am na lu tax kon kenn ku ne war nga am sa position pour défendre le Sénégal ci jàmm ndax Sénégal loolu rek xam tey tax ñu mën a a def leneen li tax ñu mën a def leneen c'est parce que tey tout simplement dañoo jàmm jooju nag ko dañ koy wax dañ koy dox yàlla nañ bokk ci ñu koy dox yàlla nañ bokk ci ñu koy wax Sénégal fañ jëm yàlla def ci jàmm yàlla def ci sutura yàlla tàppe xol yi ba ñëpp nekkaat benn ñëpp gisante waat ñëpp diisoo ñëpp ànd li li ñu doon wax diisoo euh, manko soppante bëggante pour Sénégal jëm ci kanam ñun daal ci loolu lañu nekk ci la ñu woo ñëpp incha allah parce que boo demee ci kaw am naa sama xarit boo xam ne nii bokk na ci groupe communication Pastef dem ci kaw am naa fay yoo xam ne ñu ngi PDS ñu nekk PS ñu nekk feneen ñu nekk feneen mais dañoo toog ndogu bokk lépp bokk nday bokk bàyyi kon comme que ñun démb ak barki démb ñoo bokkoon nday bokk bàyyi tey nag tey bëgg bëgg àddina ak position nit warul tax ñu ñu ñu ngaa yow ndax dañoo xamante woon démb doon deflante démb teraanga doon xamante démb te lii doogu tey tey doogu ñëw dañoo xamante bu yàgg te politique politique guñ kon tey politique quelles que soient nos divergences politiques on doit rester frères et sœurs pour le développement exclusif du Sénégal